ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak teraanga ak poche def dara ni ñu koy baaxu defee fajaru àjjuma mooy ànd ak yéen ci arisaala arisaala mooy li sallallahu alayhi wa sallam indiloon xeet wi ñu koy pratiquer mu tudd fiq wala mu tudd yeneen tur alxuraan sant ñu ne wa ma aataakum fa xusuu daal nañu wa ma nahaakum anhu fantahu tabaarakallaahu ñu ko doon topp ak yéen nag ba bind bi nu jóge ñu nekkoon ci sangu sangu gis ne subhaanahu wa taala moo ko santub jullit bu góor ak bu jigéen ñu gisoon ci tomb bi weesu lii waral sangu la ci jiitu mooy génneeg maniyu ci bànneex ci nelaw walla ñàkk nelaw góor a ko génne walla jigéen fuqaha yépp lu lañ wax waaw am nay teqantal nag ci su génnee te génnewul ci bànneex wala walla walla ñaareel ba ci liy waral sangu mooy jigéen ju joteeg góor mbaa góor gu joteeg jigéen loolu day waral sangu waaw junj la ñetteel ba jigéen joo xam ne daa gis baaxam ba baax go jeex walla mu wasin ba deret ja jeex waaw loolu gisoon nañ ko ci Euh, gisoon nañ bu ñeenteel bi mooy faatu foqaha yépp dëppoon nañ ci ne bu nit faatu dañ koy sang waaw danañ masa ñëw ci teqantal yooyu yëpp bu juróomeel ba ku nekkutoon ci lislaam ba noppi ñëw nekk ci bu ñëwee dañ koy sang waaw ma ñëw tey ci beneen tomb professeur bu am solo nga xam ne ñooy note ñu note ko mooy li araam ci ku yor janaba maanaam ki nga xam ne dafa jote mbaa mu gént am lu génn ci moom te sa sangoogut dafa am yu xaraam ci moom waaw kii dafa jote moo xam góor la gu joteeg jabar ja walla jabar la bu joteeg jëkkëram te sangooguñu dafa am yu xaram ci ñoom waaw danañ ci lim juróom ba jiitu ci li xaram ci moom ci ñoom mooy julli mooy julli waaw koo xam ne kii dangaa yor ba baatu jana ba mooy tekki jote naag jëkkër wala jot jëkkër jote ak jabar te sëngu amagut walla gént na ci guddi gi am lu génn ci moom te sangu ama amagut kooku dañ koo dañoo araamal ci ñoom ñaar julli moo xam naafila la moo xam julli farat bu ñaaral bi ci li xaraam ci ñoom mooy tawaaf ki dem Makka gis baaxam wala mu yor janaba dañ koy tere mu tawaaf ñoom ñaar ñépp kon du ñu jul dañ leen tere jul dañ leen tere tawaaf moo tax ci aj gi bu jigéen demee ba ca aj ga gis ne dafa gis baaxam gidd ba nga xam ne moom la àndal dana ko wax ne ko moytul ñaar yi rek mooy julleeg tawaaf leneen lu ujaaj ji def nag bu la neexee def ko bu ñetteel ba ci ñu ko tere mooy laal ab kaamil laal ko walla ŋàbb ko laal ko walla ŋàbb ko yooyu dañ ko koy tere a aima dëppoo nañ ci ñoom ñépp waaw ne képp koo xam ne kii dangaa yor jana ba maanaam loolu dal na la te sangoogoo euh, dañ lay aaya nga ŋàbb kaamil dañ lay aaya nga laal ko nee nañu saxaaba yi amu ci kenn koo xam ne kii indi nga lu wuteeg loolu ba mu des rek daawut ak Ibnu Hazm te tegtal bañ ca tegtaloo boroom xam-xam yi nee nañ mooy alayhi salaatu salaam ba mu bindee leetar iraq la daf ci bind bismillahi rahmaani rahim wax ko ci biir ci biir lettre ba yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawahin bayna wa baynakum ñoom ibnu xasm loolu lañu ñu tegtaloo waaye boroom xam-xam yi ne nañ tegtal boobu du mat ndax loolu loolu du kaamil déedéet ab leetar la bu ñu bind ay aaya laal lii bokkut ak laalee waaw loolu la ci boroom xam-xam yi euh, indi ku mel ni euh, Seyd Saabix ca téereem ba loolu la ca bind mu ne eh, ibnu hazm fa haza rasulullahi baata kitaaban wa fihi hazihi l aaya ila nasara wa qad ayqana lahum yamussuuna hadha al kitab la ibnu hazm wax ñam àndal ca mazhab boobu waaye aljumhur dañoo tontu nag tontu loolu nag ñiy gëstoo tax ñu koy wax ibn euh, jumhur dañoo tontu ñu ne haasihi risala wala maani min massi mashtamalat alayhi min ayat min alquran ka rasail wa kutubi tafsir wal fiq wa gayriha fa inna la tusamma mushafan waaw wala tathbut laha xurma aw xurmatu jumhur loolu la wax ñu ne dégg nañ wax ji ibnu Hazm wax waaye ku seetlu ne dafa bind ab leetar ënd ca aaya bokkut ak kaamil waaw bokkut ak kaamil wax juju nag yenu na maanaa ci gëstukat yi wa shukran kon ki yore janaba du julli ki yore janaba du tawaaf ku yore jana ba du ŋàbbub kaamil du laalub kaamil ñeenteel ba qiraatul quraan du du jàng alquraan ki nga xam ne dafa yor jana ba du jàng alquraan maanaam li ko tee li ko tee sangu jigéen la jóge ay reegalam dafa wasin te seetagut wala dafa jote te sa sangoogut ñu ne kooku du jàng alquraan foofu itam am na ci ay teqantal ci jàng ga ndax bu yoroon bu amoon ku yor téere di ubbi mu tiim di jàng walla muy tari loola am nag woyefal gu ci am mooy kooku mën naa jàng ndax ibnu abbas walam yara ibnu abbas bil xiraati lil junubi ba'san waaw nee na dara nekku ci bu fekkee njàng ma yóbbuwoo ko ci laalub kaamil xanaa dafa amoon tey application ci téléphone bi mu nga téléphone bi te alxuraan ji ci muy jàng ngir mokkal wala muy tari te laalu tëb téere juróomeel ba ci yi ñu tere yi ñu araamal ci ku yor ba professeur ak ñi note mooy almukth fil masjid mooy dugg ca jàkka ja toog dugg ca jàkka ja toog dañ ko koy tere baatu dugg ci jàkka ja toog nag mooy li muy tekki mooy su jaaroon ci biir jàkka ja jóge ci bunt bi jëm ca bële wala mu doon jël si ak satala ci biir jàkka ji wala saabu mbaa njàmpe loolu du bokk ci lañ ko tere waaw du bokk ci lañ koy tere waaye daal dugg ci biir toog nag dañ ko koy tere loolu am na ay tegtale ki leeral yu am solo yu si ñëw ca eh, borom xam-xam ya ñu wax ne yaxrumu ala al junub an yamkusa fi l masjid li xadiisi ummina aïcha radiallahu anha qaalat jaa rasulullahi wa wujuhu buyuti ashaabi euh, shaaria fi l masjid fa qaala wajjihu haadihi l buyut an il masjid summa daxala wa lam yasnaci l qawmu cheyan wa jaa an yunazila fihim ruxsa ila axiri qawlihi sallallahu alayhi wa wax na ca biirit ne inna al masjida laa li xaadin wala junub toog ca jàkka ja mayuñu ko jigéen ju gis baaxam toog ca jàkka ja mayuñu ko ku yor janaba toog ca jàkka ja mayuñu ko ku yor janaba jàng nañ ci alquranul karim yaa ayyuhal lazina amanu la taqrabu salaata wa antum suk wa antum sukaara xatta taalamu ma taquluun waaye dem caa teg wala junuban ila abiri sabil xatta taxtasilu abiri sabil nag mooy ki romb ci jàkk ji jàll dugg ci port bi génn ci porte bële wala mu dugg di jël dara jël ko génn dem ak satalaat lu mel ni satala mooy wala junuban ila abiri sabil Ashawkaani wax na ca lu am solo ñu mel ni ñoom tam wax nañ lu am solo ci bunt boobu mbokk yi maa ngi ci tomb sangu bukkut ak raggu sangu ak jaamu yàlla la raggu aada ma toll ci yi ñu araamal ci ki yor janaba te sangugut waaw ki yor lu jara sang te sangugut dafa xaraam ci moom mu julli dafa xaraam ci moom mu tawaaf dafa xaraam ci moom mu yor kaamil dafa xaraam ci moom mu jàngal xuraan di yor kaamil bi ubbi dafa xaraam ci moom mu toog ca biir jàkka ja defe naa loolu professeur euh, noté ngeen ko <coughs> ma ñëw ci beneen tomb bu am solo muy sangu yii ma doon wax sànq la wolof di tuddee sangu farata sangu yii la wolof doon wax sangu farata ndax ginnaaw daa am loo xam ne boo sanguwut day araam nga def ko kon sangu gi farata la ci yow <coughs> maa laa yatimul waajib bi illa bii foo waajib yi ma bëgg wax nag mooy sangu yi ñu sopp sangu yii may bëgg wax du farata waaye dañ leen a sopp waaw xëy na ñuy note ñu note ne sangu yi daa am yu farata am yoo xam ne du farata dañ leen a sopp waaw acca sangu yi ñu sopp sangum jumaa ca la bokk sangu yi ñu sopp sangum jumaa ca la bokk ndax yowmul jumaa ndaje mi jaami yàlla yi di daje julli ga ñuy julli tax na sharia yoonal ca sangu dëgëral ko nag feddli ko bu ñoon bépp mu kàllaf muy dem jumaa danga sangu door a dem déggal addis ba ca abu saidin rajallahu anhu mu ne yonente ba dafa wax ne xuslul jumaati waajibun ala kulli muxtalim yonent bi nee na sangum jumaa mag mu ne war na koo def sangum jumaa mag mu ne war na koo def <clears throat> hmm? waaw waaw bu amee parfum laal ko it bëgg nañ ko ca kamtalaay kàttanam loolu Abu Saïd al moo ko wax waaw mu ngoog Euh, dëgëral nañ ko it feddli ko ni ma ko waxee léegi boo demee ci albuxaari yi ca nga koy fekk boo demee ci muslim ca nga koy fekk ñaari téere yu wér yooyu waajibun xaflul jumaati waajibun ala kulli muxtalim waaw bu ñu nee al muxtalim nag mooy albaalix mooy mag mooy mag ibnu omar nee na an omar ibnu xataab baynama huwa qaimun fi l xutba yowm al jumaa isdaxla rajulun min al muhajirin al awalin min ahsaabi nabi wa huwa uthman fa naadaahu omar ayu saatin haadi qaala inni shagaltu falam anqalib ila ahli ba ca waxtaan wa àgg dañuy wax ne omar daf doon xutba kenn ci sahaaba yi ku ñu wax uthman aksi omar yëg na ne uthman sënguwut Omar ne ko waxtu wi wan la mu ne ko xam naa waxtu wi xam naa li ngay bëgg wax dama nekkoon ci ay yitte mu teemaa sangu moo tax jaariwuma sama kër bi ma déggee noddukat bi noddu li ma dese ci waxtu jàpp rekk moo ci moo ci moo ci xej waaye bu ma boolee jàpp ak sangu julli gi faat ma fa qaala wal wuduhu aydan wa qad alimta anna rasulullahi kaana yaamuru bil xusli mu ne ko ndax yëg nga ne yonent bi daananu digal nu sangu loola waxtaanu ñaari borom xam-xam lañ waxtaanu ñaari ñaari xalifa lañ e, kenn naka wax morom ja fàttali ko loolu nag saaba daanañ ko waxante dawul jur seen diggante jenn ñol-ñol wala jàppal bàyyil mbokk yi noonu ci seen waxtaanu fajar arisaala ñoo ngi toll ci lu am solo te mooy sangu yi nga xam ne dañ leen a sopp ma toll ci sangum jumaa waaw mu tax réew yu mel ni sunu réew yi xam naa euh, député yi rawatina yiy bëgg a ñëw war na ñoo jàppale ci bisub ajjuma ñu am ci temps bu gën yaatu biñ ci am bisub ajjuma ñu am ci temps bu gëna yaatu biñ ci am waaw lu am solo la di mën di yóbbu sunu njaboot di man di lii dal Ousmane bañ ñoo dal te mooy ñu am temps wu sangu jàpp dem julli ji bu ñu dellusee julli ñaar rakk ca kër ga door a añ waaw député yi jombul <laughs> Eh, kii bii di ñëw mandat mii di ñëw ak liste yi bu nu jàllee daañ ñu tànnal ñoom député yi xëy na yokkal ñu suñu temps ci vendredi bi incha allah donte dañuy domp ca aj eh, samedi ji indil nu ala kulli xaal ñaareel ba ci sangu yi ñu sopp mooy sangul tabaski walla sangul korite waaw sangul tabaski walla sangul korite walam yati bi fii dalika xadisun saxiix waaw hadis bu wér nag buñ wax ne ndaxte nangam nangam borom xam-xam yi nee nañ amu ca waaw lu dul hadis ba ñu am ci albadrul munir ahadisu xusnil ni ñu ne loola la boroom xam-xam yi wax bañ ko taxrijee dañu ne hadis yooyu daifa waaye nag jële nañ ci saxaaba yi yu ñu demee ay aathaar yoo xam ne lépp day tegtale ne sangul tabaski sopp nañ ko sangul korite sopp nañ ko ñetteel ba ci sang yu ñu sopp mooy ku sang néew boo noppee sangu képp ku sang néew sopp nañ boo noppee nga sangu ñu ne ko ko yanu sopp nañ boo noppee nga jàpp yustahabu liman xasala mayitan an yaxtasila waaw inda kathir min ahlil ilmi waaw hadisu abu hurairata ba moo wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man xasala mayitan fal yaxtasil yonente ba mu ne ku sangub néew boo noppee na nga sangu wa man xamalahu fal yatawadda ku yenub néew boo noppee na nga jàpp loolu nag jaar naa bàyyi xel lool alayhi salaam moo ko jàngale abu hurayrata moo ko nettali imaam ahmad ashaabu sunan wa xayruhum waaw ñoo nettali wax ju am solo jooju ku sang néew boo noppee sangul ku yenu néew boo noppee jàppal waaw loolu am na solo lool tabaarakallaahu ci yooyu ñeenteel ba professeur ci sangu yi ñu sopp mooy sangu ngir armal sangu ngir armal ku aji makka war a ca biir ali bu fekkee madina nga nekk sopp nañ mu sangu ginnaaw daa bëgg armal pour aj wala mu armal pour umra indal jumhur loolu sopp nañ ko hadis ba zeyd bnu thabit moo ko nettali annahu raa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam li ihlaali li ihlaalihi waxtasal nee na gis na yonent ba di summi ay yéreem bëgga armal nee na mu gis ko muy sangu ad daaru xudni na ko al bayhaqi nettali na ko at-Tirmizi nettali na ko ba noppi rafetlu ko waaw al-Uqayli nag moom daayifal na ko ala kulli xaal loolu nag mooy dox fi ne nii ci penc mi ku bëgg a armal sangu ba ma ca biir ali la ca ne ci toilette ujaaj yëpp ñu fa jaar mën nañ caa sangu te kenn du xadal sa morom waaye bu dee ci ujaaj senegal yi may nañu leen ñu sangoo ci seen otel soloo ci seen otel watoo ci seen otel parfum ci seen hôtel buñ demee biir ali nag ñu julli ñaar rakka génn tànn ca aj aj ya genn aj ndax ñetti aj ñoo am boo fa demee nga tànn ca genn loolu ci sangu yu ñu sopp la bokk juróomeel ba professeur ci sangu ñu sopp mooy sangu ngir dugg màkka sangu ngir duggu màkk yustahabu liman araada duxola makk an yaxtasil lima rawaahu an ibnu amarin annahu kaana laa yuqaddimu makka illa baata e, bisi tawaa xata yusbiha summa yadxulu makka nahaaran abdulaay ibnu amar fóore la ci fóore xeet wi daawul ñëw makka lu dul bu agsee ba Zitawa mu mu fanaan fa bu xëyee dooru dugg màkk bëccëg waaw bu ba setee mu dugg màkk daan sangu nag dooru dugg wax nañ ne loolu sallallahu alayhi wa sallam defoon na ko te Abdullah ibn Umar daa bokk ci ñi nga xam ne sunna si yonent bi moom jéego par jéego rek lañ koy topp waaw ibnul munsir nee na al ixtisaalu inda duxuli makka mustahab inda jamii al ulama wa fi tarkihi waaw loolu ibnul munzir moo ko wax mu ne sangu ngir dugg makka sopp nañ ko ci mbooleem borom xam-xam yi mu ne waaye ñàkk ko def nag du tax nga rendi xar du tax nga woor ay fan waaw am ñu wax ne bu la neexee yem ci njàpp bi ci mujj professeur ci sangu yu ñu sopp mooy sangu ngir taxaw arafa sangu ngir taxaw arafa yundabu al xusl liman araada al bi arafa lil xajj ndax Malik nettali na jële ci naafa mu ne anna abdallahi ibnu omar radiallahu anhuma kaana yaxtasil li ixraamihi qabla an yaxrum wali duxuuli makka wali wuquufi ashiyata arafa aw kama xaala mbokk yi kon sunu bindub tey moo doon yi xaraam ci ku yor ba waaye beneen bi xaaj bi mooy yi nga xam ne mooy sangu yi nu sopp jërë ngeen jëf des na ko déglu beneen yoon mën naa am ak beneen yoon loolu indi bind bu bees niñ koy baaxu di defe yal na yàlla nangul nu nangul leen yéen ñi noté itam ngeen beral ko carnet boppam bu tudd arisala vendredi lay am sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi ni taxaw yor seen kayit këyit bëgg leen firim fàncal xibaar toi firim fàncal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.